asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nuy joxe kàddu yu bàyyikoon ci jëw ñun suñu mbërin Fall ji suñu Falil Fall mu ñaan su moom yàggal lu nu téral nu ko moo njëbatu mi bokkal sëñ bi rakam yu baax yëpp suñu boom boole na ñu kàddu yoo xam ne ma bàyyi ko jëwriñam ji di safaan moom sëñ Moor Moussa di wax si sa Njaay Mbeng di kàddu yoo xam ne ma yi jëwriñ Serfal ji sëñ Moor Moussa di si diwaan moom si amul benn ndigal loo xam ne da koo dikkee nag ci jiw suñu tuwaay ja soppe mi baax ñëpp di si amul ndoxaa ñoom suñu moom yàggal seen dund yi te wéral leen wéral leen àggal si yéen yi baax ñi ñoom àggal seen yéen yi baax ñëpp mu wax nag moom jënd seen seen seen xarit ji jënd seen tuwaay si amul ndax am wax joxe ndigal nag jox serfal gépp nag dafa bëggoon nag su nagee ci ajuma ji ñu seenu di doon fanee fan ba fan ci weer yu nekk ah, marché bi yeewoon ci gaar ba ndi ko ci gaar ba dafa la fan lépp dindi ko ban bëgg des na wax waaye la fa newoon lépp daan la jóg rek loolu digal waa Kër Fall te seeral la digal te lu mu dul suñ tubaab digal Sëriñ Fall ñu tam koy bokk ci rek loolu mu ndigal bàyyiwu ci fenn nag bàyyiwu ci ñenn bàyyiwu ci lenn loolu ndigal moom ndigal lu yaatu loo xam ne comme euh, fooy ne rek bokk ci ndigal si wàllu lii ndax ko lay doon bu yaatu fàttali ko doon bu yàgg fàttali ko doon doon sëkk ndax ah, ne nekku àdduna rek loolu topp li fi ngi nekk ah, ndigal lool dafay fu toll nii fu mu toll nii ba ndigal da ci am ndigal yoo xam ne dafa gën a téye yomb a téye ci nag mata booy ci gaar ba bis koy dindi ah, loolu murid mën naa yaatu lool daal ñu ñu ko digal noonu gi yàlla na ko nu kayan jortu lu na ko suñ bëgg ci rafetaay ci ci mat sëkk rek ndi daal ndigal mooy sunu dund aji dund ju ne nag lu mu gën a bari dund rek am xelam gën a dal yaa xelam gën a dal te ndigal ndigal daal di naan gi kon nag lu ko gën a bari rek suñu xel dina dal ndax ñaari ndigal ci kër yoo mel na ni wala lenn gi ci lu wér rek ko waaye ndigal lu mujj am ñu ëpp doole jëm suñ suñ fal mbàkk ju baax ji suñ yóbbu mbàkk mu suñ fal dafay yebal jiwandam ji nga xam ne mooy seen moom mu taxa seen moom mu taxa mu suñ fal mu ñëw fi waxoon gaaw bi ñu fi ñëpp xam ne ni su boo defoon aju moom moom suñu su déggee ñu ni bu suñ bu suñ Mourtada Mbacke déggee nii déggee nii aussi Mbacke li ma koy defloo ajjuma la woon aju ah, ah, ah, li mu doon doon gaaw su déggoo nii suñ Mourtada Mbacke jël suñu tuwaay ji gaaw la woote kon foomu gaaw moom bu fekkoon ajjuma la yoroon lu maa doon rek dafay fomm moom bàyyi ba ndigal loolu suñu fi loolu moom ñëpp kon moo tax moom amoon na ci xel koom ni ñi mel ni man ci leen te sëñ Muntaxa sëñ Muntaxa Mbàkke moom sëñ Fallu ko waral bon daa dugg ci rajo bi ñu di woote ka am kàddu yoo xam maa ngi koy dégg mais su suñu dégg kàddu jërëm ji Cheikh Cheikh Fra moom sëñ Fallu Mbàkke jërëm ba baax jooyu dugg ci di wax ci léegi ne ban si si si si Fra dugg rek ah, si si si Muntaxa am boobu gisu ci yàlla rek nga xam moom moom baaram nu nga tudd génn moom moo tuur tontu ba ni mën a sax far kenn waxee kenn waxee wax waaye ba mu diggee kaddu suñu Ibra rek moom nu wutul a moom topp naa ko lu yàgg yàgg daal moom moom su ma maaree sax su sam ne mandal na ma ndax nangoom guri ak jëfe gi ndigal rek hmm. waaye yéen yu bari yu mu def yoo rek moom si wax yëpp téléphone bi soo ko seetlu guy nag si si wàllu soññi mooy si la fa gépp na rawatina ñi nga xam ne seen buntu Cheikh Ibra Fall mooy suñu mbiram te ci rakam yu baax yi xëy lu am ñooma ah. mooy ñoom nooy moom sama defal leen ak wér ak jàmm defal leen lu ko noonu muy xam ne ñoom ñëpp te bokkoo ñoom pas-pas ñu toll nee na na ku ne rek léegi boobu daal ku ne ci moom de bokk am xel mas na cee bokk ak xol mas na cee bokk wërsëg mas na cee bokk jëf mas na cee képp ndax ab sédan jàpp. ku mu neex sa xol képp rek boo ko jiyee loolu te ñëpp la neex nag ndax safaan yaa def te dëkk wala méngoo wala dëkk tubaab bi kon bu ko suñ tubaab jiyee loo loolu yaakaar naa mm, mbégte mi baax ñëpp rek ku ku bëggee loolu ku nekk mel na fekk ko rawatina nag ca bokk rawatina nag ku bëggal ña ña fay ña def nag. léegi defe naa kàddu yooyu kàddu yaa ngoo nan nan ko boole kon su su ndigal loolu jàllee la ñu joxoon ci suñu rek muy ndigalul Madinatul ma léegi si Mbàkke moo ci tey rek. Eh, lu mu gën a bari nag gën ci noonu rek ndax fan jëm ndigal loon fay jëriñ te fii dañ koy mën a sàkkoo foofu des fa sàkku ndigal fii des ko sàkkoo nag ah, am foofu la nga bëgg kon mur yi yow suñu mën faal gi yéen ci raw yéen kaddu si fàllu ngoog koo koo jotal ko ne faw ah, amuloo yi sa bopp nag ku ne jotal rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh